asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki talibe am na mbégte bu baax a baax jàkkaar yéen fii ci seen seen Nord Diané TV waaye nag ñu am yëg-yëg bu baax a baax ci fi nga xam ne fi leen taxam ñu fulal bi nga xam ne fi leen di jéggee Rosso Mauritanie jëm Mauritanie fële sëñ Yérim moo nga ne mbokki talibe yi bàyyi xel Nord Diané TV ana ban yëg am ci lii ndax ko xamoon jëmbi sëriñ bi ak bi ñu koy indi fii barab bi demul woon nii waaw moom de xanaa doole sant yàlla bu baax rek di sant sëriñ bi ci dimbali gi mu ñu dimbali ba yàlla dogal ñu bokk ci jataay bi tey ku ne xam na ne bi muy nekk fii mag ñi day nañ fi dex ñaari weer doo ko egg ci moom ñenn ñi daan nañu egg si ñenn ñi daawuñu egg si ndax jafe-jafe yi amoon ci yoon wi ak ñi daan dogale nit ñi waaye seen pas-pas ak seen yéene ci liggéeyal Serigne Touba moo leen may ñu daan def loola ngir bëgg ko ak bëgg a liggéeyal yàlla. loola nag ñun am nañu taw feex ndax ku ci nekk xam na ne mën ngaa xëyee Dakaaru ñëw fanaan si Mauritanie dem saara te doo ci am benn jafe-jafe dugg ci ay oto yu neex kon loolu day wane liggéeyal yàlla maanaam dooleem ak ak ak ak ak fi mu toll kenn ku ne war na cee góorgóorlu sa kéemtalaay kàttan rawatina ku ñuy askanale Cheikhul Khadim kon nañu bokk gën a góorgóorluwaat gën a sax ci jaamu yàlla ak jub ak liggéeyal ko gën a sax ci taalube ak xasida yi man daal xam naa ne lii moom ku mu dalul sama xel leneen du dal sa xel alhamdulilah yéen it ñu leen sant bu baax ci seen taxawaayu rafet ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen ko def ci tasaare liggéey bi ku ne gis na ne jéggi bi ñuy jéggi tey yooya jamono nit ñi dañ daan làqatu di wut ku leen jéggil ngir ñu mën a jàll fa sëriñ ba ne te daawu ñu yem yor seeni i bagage dañ daan yor alal joo xam ne day jëm ci moom kon nag loola buñ demee ba yàlla dimbalee ñu lii nga xam ne mën nañu jóge ñii jóge Touba ñii jóge Ndakaar ñu àndandoo dem ba fa sëriñ ba newoon nga xam ne barab bala boo xam ne barab bu tedd la mm. wax nañ ne fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñoo jox ko wirdu Maxuus loola nag buñ ko amee war nañ koo sant sëriñ bu baax tey ñaan xalif général Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla doole ko fay yàggal te wéral ko di ñaanal mbokki taaliba yëpp di ñaanal sëriñ Bassirou Amar nga xam ne moo jiite waa Ndakaaru waaye di ñaanal soxna maam Issa Mbacke nga xam ne ñi jóge Touba ñëpp moo leen jiite di soxna maam sa kafe ñu ngi koy sant bu baax di sant sëñ Sidi mi nga xam ne moo nekk gànnaar te liggéey liggéey bi ba nga xam ne dem gi ak dikk bi dafa yomb wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf